muy Tawfekh ju rëy kenn xamul fu mu yem. abonneel gaaw fii ci Tawfekh bu ñu dugal rek nga mën see jot si sens. kon dafa mel ne من لا شريك له وسوى ما للوعد لذيك يا الله وجاتك اليوم يا رمان منتجيا فوزي بما ستوفي دنياك يا الله أنت رئيم راسي أجو برامتي ألا ألاقي درا منك يا الله صاحب الجلالة ملك المملكة المغربية أدام الله عزه والشعب المغربي ما أصابه جراء هذه الكارثة المفزعة وبهذا الخصوص بعث صاحب الفضيلة شيخ محمد المنتفع الخليفة العام للطائفة المريدية هذا العام برئاسة ابن عمه الشيخ عبد الصمد ابن الشيخ شعيب بكر ابن خادم رسول مؤسس الطريقة المريدية بعث صاحب الفضيلة هذا الوفد لتقديم واجب العزاء والمواساة نحو أشقائنا نقول أشقائنا المتضررين في هذا الزلزال المدمر وأيضا تصميم مساهمة رمزية إلى سعادتكم باسم الطريق المنبه هذا هو سبب الزيارة ونختم هذا الخطاب بقراءة بيتين من قصائد الشيخ القديم مؤسس الطريقة المريدية واشفي جميع المسلمين عاجلا ثم قهم خوفا وحزنا آجلا ونجهم وعافهم والطف بهم ولا توافقهم بكفر قلبه هكذا نرفع أيدي التضرع سائلين المولى عز وجل أن يرحم الموتى ويخفف العناء عن المتضررين

euh, il nous a demandé d'être conduit par son demi-frère ici présent, l'honorable Serigne Abdou Samad Mbake, euh, fils de Serigne Chouaïbou, lui-même fils de Khadim Rassoul. Euh, il est accompagné par euh, Serigne Chouaïbou Mbake, qui est le fils du Khalife général de Mouride, Serigne Abdou Khadir Mbake, votre vieille connaissance, qui joue les intermédiaires entre lui et euh, le, royaume chérifien. moi-même, Khadim Diop, euh, son secrétaire général. Donc, le Khalif général de Mouride, Excellence, en composant cette délégation, a voulu en son nom propre et au nom de toute la communauté mouride et musulmane présenter à Sa Majesté, le roi Mohamed VI, que Allah le protège, ainsi qu'au peuple frère marocain, ses sincères condoléances à la suite du terrible tremblement de terre survenu dans la nuit du vendredi 8 septembre dans votre cher pays frère et ayant occasionné plusieurs pertes en vies humaines. L'honorable Serigne Muntaka prie que accueille tous ceux qui ont perdu la vie en son paradis Firdaus. Et il prie également qu'il aide le peuple chérifien nos frères en islam, à surmonter cette épreuve très dure qui appelle de tous les musulmans leur solidarité à l'endroit du peuple marocain. Pour marquer sa solidarité agissante et celle de toute la communauté, le Khalif envoie vers vous, Excellence Monsieur l'Ambassadeur, cette forte délégation conduite, comme je viens de le dire, par son demi-frère ici présent, Serigne Abdoul Samad Mbacké, qui vient vous apporter réconfort moral, mais aussi un soutien symbolique d'un montant de 100 millions de francs CFA en guise d'assistance aux sinistrés qui sont nos frères en Allah. Il formule en même temps d'ardentes prières à l'endroit du peuple marocain afin qu'il se relève de cette épreuve et continue sa marche vers la prospérité sur le chemin tracé par les hommes de Dieu que nous avons en commun et grâce à qui nous sommes unis par la foi. Voilà les propos que le calife nous a, nous a chargés à travers Seigne Abdoul Samad Mbacké ici présent de transmettre à travers votre personne à Sa Majesté le roi Mohamed VI en priant de d'agréer nos salutations les plus respectueuses et les plus cordiales. Ah, euh, exprimer ma mmh. profonde gratitude pour ce geste euh, <coughs> euh très symbolique. D'abord, euh, euh, la venue de la délégation du, du, du, du, haut niveau, du très haut niveau, donc, euh, y compris donc, euh, les membres de la, de la famille du Cheikh Montara. Donc ça, ça dénote vraiment de, de l'intérêt que son éminence porte euh, au, au, royaume chérifien au, et puis au lien particulier qui le lie à Sa Majesté le Roi Mohamed VI, euh, Amir al-Mouminin, que Dieu l'assiste. Euh, c'est encore euh, un symbole de cette relation toute particulière qui a toujours euh, lié euh, la ville sacrée de Touba euh, au royaume chérifien. Et ça, euh, enfin, dénote de cette solidarité qui a toujours euh, existé entre nous et qui est aussi un des, des piliers de l'islam. L'appartenance à l'islam, c'est aussi cette solidarité euh, permanente, euh, cette solidarité agissante entre musulmans là où ils sont. Donc, euh, je crois que euh, cette, euh, cette, démarche est à saluer. Est à saluer, bien qu'il soit tout à fait naturel dans nos relations quotidiennes, mais cette euh, démarche donc est, est vraiment la bienvenue et elle est appréciée et nous sommes vraiment fiers de cette relation toute euh, humaine Euh, spirituel, euh, mais aussi de ce soin particulier que chacun apporte à l'autre. Euh, donc vous êtes en train de nous dire que vous n'êtes pas seul, que nous sommes avec vous. Et je voudrais aussi dire que dès le début, son éminence euh, s'est adressée à Sa Majesté le Roi Euh, Mohamed VI Amir al-Mouminin euh, en lui adressant donc lui envoyant une lettre de condoléances dès le début donc euh, et je crois que la boucle est bouclée comme on dit et les faits sont là et nous vous disons toute notre reconnaissance et toute notre considération et je vous demanderai de transmettre à son éminence euh, vraiment les remerciements les plus euh, chaleureux de Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mouminin et aussi lui transmettre euh, les salutations fraternelles de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Euh, nous sommes, euh, nous, encore une fois, merci euh, pour cet euh, élan de solidarité admirable Et Inch'Allah, euh, euh, qu'Allah protège nos, nos, deux pays, le, le, le, le, Sénégal et le Maroc, et qu'Allah protège euh, nos leaders, et qu'Allah euh, donc nous rassure dans nos pas et euh, nous permette vraiment d'aller de l'avant euh, sur le plan de la, de la, de la paix, de la sécurité, de, de de la prospérité. Euh, wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala alhaadi alamin sayidina moolana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi dawi radwani wattamkin asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh bokki jullit yëpp noo ngi leen di nuyu tey nag ñu ñëwoon fii ci ambassade Maroc ci ndigalul Cheikh Mouhamadul Mountakha mi fi toogee jataayub Cheikhul Khadim fekk fi ambassadeur bi ak ñimu mu àndal ci liggéey bi ngir yëkkati njaalum sëriñ bi teg ko ci loxoom ak ndimbalam loo xam ne lu tuur la ci li mu yéene mu dem ci kilifa maroog Maroc gépp ak njabootu Maroc gi nekk fii ci Sénégal ak ga nekk foofa njaal mu matale moo xam ne da koo jëmeli ci euh, réew moo xam ne ak Sénégal dañoo bokk di dëkkandoo di ay doomi ndey te yàgg lool te ànd bi rafet naka jekk mu waxoon ne nag nañ ñëw fekk ne jiite jiitaloon na ay leetar yooyu njaal ba mu woon ci ñoom waaye mu yebaloon ma ne na ànd ak njaboot gii sëñ Chouaïb bu di doomam sëñ Abdul Xaadir sëñ Chouaïb bu Bas Anta Ñang ak sëñ Xaadim mii di jarbaatam tey secrétaire am ak mboolem délégation bi ñu ci ànd ngir ñu jëmmal ko fi ngir tiisu metti wi ak nattu bii nga xam ne ku ne xam na ne eh, jullit nattu lay am waaye mbugal moom ci ñi gëmut yàlla la jëm kon nag li am na rek la muy ñaan nag sun boroom mu teggi nattu boobu te jàmmal leen te may leen tawfeex ak mucc di jaare ñëpp di nuyu bu baax a baax ambassadeur bi di rafetlu taxawaayam ak taxawaayu kilifaam gi fi nekkal noo ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. بذاك يا باسط الأمال لي بريدا فاذكر مباسطة داري يا الله بسطت يا باسط الأعمال لي برضا فاذكر مباسطة داري يا الله قبلت يا قافل الأداء لي وما لو لخيرنا في بقصد منك يا الله رفعت يا رافع الدارين مرتبتي بلا انقفال بفضل منك يا الله kenn xamul foo yem. abonneel gaaw fii ci Tawfekh Production ngir vidéo bu ñu dugal rek nga mën see jot si sens. kon dafa mel ne Tawfekh Sëriñ Tuubaa rek am